nañ ko jàppale boroom xol bu rafet danga koy dimbali waaye doo ko yàqal te Modou Gueye amul noon fii ci Jidda dañuy ñaan li mu yóotu yal na ko ko yàlla defal man la yaa maire Juma di ko ñaanal li ma koy ñaanal rek fan wu gudd ak wér di ko dénkaat yuusu Youssou Ndoye Youssou mi ngi ci taxawaay bu rafet entourage bi daal macha allah yal na yàlla dolli jàmm vraiment kontaan naa dans le fu ne dem naa fa wane nañ ma fépp ci moom moom xam na ne maa yaayam wax na ko ba jidda gépp xam ko kon dañ koy ñaanal rek mu jëm ci kanam bàyyi ko ak euh, Amadou Ba li ma ci gis baax rek baax moom mën nga paas sa baax ndax moom rek newu fi woon maire waaye maire de social ci moom la nekk maire de confiance ci Modou Gueye la l'homme de Modou Gueye li tax président Macky tànnoon ko ba jox ñu ko moom lii la Modou Gueye bi mu ñëwee jidda la fi xeex jeex fu ñu mës a tase dañuy kur fañente moom moo ñëw di la defal lu baax ba pare tey sëgg moom xaarul nga sëgg de moom mooy sëgg moom kon li muy ñëw ci jidda di ko ànd ak président yal na ko yàlla jàppale ci barke Seydina Muhammad entourage bi daal na rafet rek te xol yi rafet rek ndax rafet xol mooy yor réew waaye xol bu rafetul réew mu baax Seydina Muhammad ali salaatu salaam li mu tagge woon julli mooy xol bu rafet moo duggee xolam rafet na yaru na baax na am na taalibe man da ba mu ne maay yaayam ba jiddee ba gépp xam ko du ñàkk dara te ba ma demee ci Seydina Mouhamed dama ko ko ñaanal yal na yàlla nangu mhm. ñoo ngi ñaanal entourage am yëpp ba ci coordinateur Mama Diop mhm. responsable yi nekk jidda yëpp mhm. Adja Safi Ndiaye Adja Cilo Sarr Adja Xawaase Adja Awa Ndiaye te yéen tamit yal na yàlla barkeel leen may remercier waa bàyyi ko Ba nag Youssou Ndoye Ba nag seen diggante cere la ak soow ku jàpp cere jàpp soow ku jàpp cere def ci laalo kon Amadou Ba yàlla na nekk président ba monsieur le moo Modou Gueye nekk ci ministre directeur impôts et domaines ñoo ngi koy encouragé lii yombul de yombul nag macha allah merci beaucoup jërëjëf baa ngi jàmm yàlla na la yàlla yàlla ça va nii bien gën a gëstuwaat xale yi tey di ban mbégte nga am tey en tant que murid bi. ak suñu équipe laay wax ñi nga xam ne ñoo bokk lépp defandoo lépp euh, àndandoo opération bi nga xam ne yàlla di suturaal nañu si ba fii nii ñu ngi ciy sant yàlla comme at yi weesu ñu ngi daan def euh, mooy bu ñu defee xarfal bi ñu def suivi bi topp xale yi di leen faj ba yàlla dogal ñoom ñëpp ñu wër. loolu it lañu reprendre waat année bii ciy sant nag ñi nga xam ne si wax na ko léegi dala ci site mën a yóbbaale équipe bi yëpp ñoom moom ñoom mooy ñoom yëpp équipe bi rek ñi nga xam ne jàpp nañ si cat ba cat kenn si ñoom taayu topp xale yi kenn ku si nekk si ñoom xale am complication sax ñoo koy fekk ci këram jëli ko yóbbu ko traité ko ba loolu yàlla ci sutura donc vraiment am ñu seen fay lii nag loo xam ne si sabab bu njëkk bi mooy jaamu ci yàlla. parce que xam nañu ne euh, am na loo xam ne si dafa dafa jéggi politique bi parce que bañ koy def boobu politique bi ñun dañ koy tàmbali ñëpp boobu xalaatuñu woon sax ñu la scène politique. yàlla dogal daf koy yokk waaye sant rek aussi parents nga xam ne am nañ confiance si ñun. pour ñu a yëggale suñu yéene si ñoom. di fasante ak ñoom coloré parce que lii aussi lien la boo xamante ni si dafa tisewu moo tax bëgguñu lien boobu noonu wàññeeku benn yoon xale yi dañ leen di topp ba keroog yàlla di def sutura ba ñu mën a dellu seen njaboot ak ngir ak càmm en kontaan nañu a baax si ñun kontaan nañu si engagement bi kontaan nañu si engagement mais surtout kontaan nañu si coono yi nga xam ne ñii ñu koy daj pour xale yi ñun ñëpp nekk si jàmm kon mooy yi parce que ñu ko mënee def c'est parce que population yi am nañ kóolute si ñun euh, parce njaboot dafa fort dafa sacré boo ko jëlee di ko dénk ci loo xamante ni si opération a chirurgicale loolu kóolute la euh, yaakaar na donc ñu ngi ñaan yàlla aussi yaakaar yooyu bañ a tas mukk ñu ngi ñaan yàlla aussi continuer euh, kóolute kooku noonu ak kóolute kooku sax dàkk donc vraiment ñu ngi sant population yi di sant ñëpp ñi si ay yaayu jaboot la ak papa yi tamit ñi nga xam ne ñoo indi seen jaboot lan ngay a ñaaxam daal waaw dañ lay kat adduna euh, laxas njariñ ci ginnaaw coono kon nañu góorgóorlu xam ne coono yi def tey boobu si rek dama si wàcc. kon soxna Sow police. mu moo la ci de jaare kaw bëgg. moom la waa Pikine bëgg. Pikine kontaan xale maa ngi nii. ñu doon wax naan meer xale. musique xale. bongo xale. xale bu pare ni ñaan yàlla. man li ma la waxoon rek. ñun ak yow ba. président barki Serigne Sall barki Seydina Mouhamed ndax nag daa doon loo xam ne na dafa metti moo du koy doon social te doonul woon dara di jàppale ndaw ñi di jàppale jigéen ñi ku ko bëgg gëm-gëmam ba booy ànd ak moom sax ci moom ngay dox ndax social am dañuy ñaan yàlla ñun ak yow ba nga doon président loolu la loolu de laa wax ma ne ko de laa wax ummi dégg ummi doguma la nag xamal ni ko